salaamaaleykum mbokk internet yi si tan télé Sénégal ñu ngi leen nuyu di leen euh, jaajëfal di leen ziar di leen euh, kontaane ci ni nga xamante ne noonu ngeen di euh, toppee programme suñu chaîne digitale bi di télé Sénégal tey nag yemook mercredi 23 novembre 2023 bien sûr ñaari 23 daje seen émission kaddu askan wi daal di ginnaaw yi nga xamante ne xew-xew yi amee ci biir réew mi macha allah bëri na tey nag tànn nañ leen si ñaar ngir ñi daal kay koy waxtaane waaye nag laata rek ñuy dugg ci ponk yooyu noonu dañuy jaajëfal képp koo xamante ne waxtu wi ñu toll ah, yaa ngi toog sa bureau wala toog sa atelier euh, liggéeyukaay wala nga toog sa kër di ñu di ñu seetaan di xaar bu baax a baax waxtaan wu am solo bi nga xamante ne bëgg nañ koo sekk ak euh, yéen ndax émission bi di kaddu askan émission wax sa xalaat la woo xamante ne euh, ku ci nekk rek ak foo mënti nekk saa su nekk dañuy bëgg rek ngay càmbaral sa bopp li nga xamante ne moom la ñuy indi ci penc mi ndax rek ah penc mi fa la ñu mën a waxtaanee lépp li nga xamante ne mën na indi coppite eh, ci eh, réew mi ginnaaw nag mi leen nuyoo di leen jaajëfal wax ne tey nag bëgg nañ indi ñaari miir ndax xam ngeen ni ah, naka eh, démb nag am na ay leader yu askan yoo xamante ne daal dinañ fësal ay xibaar xibaar yooyu lee bokk na ci nekkinu Ousmane Sonko bi ñu jàpp ne jamono ji nag yox-yoxal ak wér gu yaram ak gu gasax daal na koy sori ndax moom lay Ousmane Sonko ginnaaw nag ba mu yàggee lool l'hôpital ndax xiifal ga mu doon def di grève de la faim ba juraloon juraloon naaw ba tax na jamono ji moo nga ñëw ñu uh, téye ca prison bu uh, Cap Manuel foofu nag moom Ousmane Sonko moo ngi wëyal la nga xamante ne moom la laa daal di def ci wàllum liggéey waaye itam uh, ci politique gi nga xam ne ci lay yëngu am na ay stratégie yu am solo yoo xamante ne moo ngi koy teg ba ci mujj mooy ñu daal di génnee Bassirou Diomaye ngir mu nekk seen beneen candidat boo xamante ci wàllum parrainage jamono ji nag moo ngi ciy def liggéey bu am solo donte moo nga ñu tee eh, ca kaso Ousmane Sonko mi nga xamante ne wér gu yaramam eh, mu ngi sant yàlla bu baax a baax li leen la ñu daal di xëyee waaye itam eh, taxawaay bi nga xamante ne mujj na ko fee teg mu nekk ay stratégie yoo xamante ne tàmbali na jaaxal ñi nga xamante ñoo di ay camp adversaire am loolu bokk na ci li nga xamante ne tey bëgg nañ koo waxtaanee ñaareel bi mbokk yi mooy la xew assemblée nationale te ñu bari ci askan wi dafa mel ni sax bayuñ ci xel mooy vote budget année deux mille vingt quatre bu ñu jëm mu nekk année boo xamante ne nar na nar na métti ci wàllum dépense ndax élection yi nga xamante ne war nañ àgg mu nekk ay élection présidentielle waaye nag élection présidentielle yooyu sax soo muyut mën nañ cee toftal leneen élection muy élection législative yi waaye nag jamono ji li waral Sénégalais yëpp tiit mooy budget bi am na noo xamante daal nañ koy daal bindee mën na sax bañ a àgg genn wàllu at te jamono ji chiffres yi nga xam ne ñoo ngi koy évoqué war na toll ci juróomi institutionnel bu Sénégal ci atum 2023 ndax koppar googule danañ ko dugal fi nga xamante ne foofu la war a dem ndax wàllum éducation ñoo ngi dégg na nga xamante noonu la enseignant yi di di di di xuntoo ndax eh, niki démb ñoom seen budget jot naa jaar fi nga xamante ne moo di ca eh, assemblée ba ñu daal di koy wote ñi nga xamante ne ñoo yollum wàllum euh, télécommunication ak communication mooy ñun ñi nga xam ne taskatu xibaar ñun tamit ñoo ngi jooy ndax euh, sunu ministre boobu nga xamante ne mooy moo nekk sunu kaw amul benn njàppandal boo xamante ne moo ngi koy yónnee yenn ci ay euh, yi nga xamante ñooy maison de la mooy maison de production yi nga xam ne ñoo ngi yëngu ci wàllum journalisme ak na mel moom la daal di féete donte nag am na loo xamante ne xay na ñoo ngi koy laaj képp koo xamante ne maison de presse nga te mataloo ko donc mais itam waxtaan war naa am ngir képp koo xam yaa ngi yëngu ci wàllu woowilee itam nga mën a gis sa bopp ci li euh, nguur di firotal ngir jàppale askanu Sénégal ndax nous tous nous sommes des et nous travaillons pour le bien-être du euh, Sénégal donc mbokk li la ñu war a euh, ci seen émission kàddu askan di ci xaar bu baax baax seen xalaat fu waay nekk ci àdduna bi mën nga bokk ci waxtaan bi soo defee 77 810 90 90 Régie merci de bien m'afficher le numéro waaw je pense que c'est déjà fait 77 mi wala nekk ci bitim réew soo leen composé def appel direct wala jaare ci euh, euh, whatsapp bi daa ngeen mën a euh, dugg incha allah ci waxtaan wi daal di joxe seen xalaat ci ñaari ponk yooyu nga xamante ne jot na am moom lañ leen tànnal ci biir waxtaan nag am na yeneen yoo xamante ne itam mën nañ ko ci laaxaale ndax Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang tey waroon nañ jàkkaarloo fi nga xamante ne Euh, euh, mooy euh, cour cour de cassation ndax foofu tey la ñu waroon càmbar dossier bi ginnaaw bi nga xamante ne condamnation en première ak deuxième instance jotoon naa am dañoo bëggoon xam ndax tey Ousmane Sonko ci digganteem ak Mame Mbaye Niang la mu sàkk woon mooy ñu dàqal verdict ba comme na ko cour defee woon ci digganteem ak état bu Sénégal ca problème mu Ziguinchor ba tey loolu itam la waroon càmbar waaye xam na nag la fa mënte am itam ci biir waxtaan bi suñ ko jotee daan nañu ko daan nañu ko mën a jox Régis jox ma ki nekk ci mbuum bi salaamaaleykum allo allo allo ah dafa mel ni kooku dafa daw ah di jaajëfal bu baax a baax euh, ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan di am euh, mbégte vraiment euh, di topp waxtaan wi ak yéen suma xarit Demba maa ngi koy jaajëfal ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaane depuis Kolda Ibrahima Pleya bonjour am Binta Sarr suma magu bopp maa ngi koy nuyu di ko jaajëfal Demba Ba itam Abdou Fall yéen ñëpp maa ngi leen nuyu di leen jaar di jaajëfal ñi nga xamante ne ñooy teewloo waxtaan wi waaye ay itam waaye ay itam Ibrahima ni ma ko rek un geste simple à faire c'est bien sûr bien sûr liker vidéo maanaam bouton j'aime bi nekk na bi nekk na loo xamante ne ah, dana baax trop ci waxtaan bi soo leen ko mënee itam nga daal di koy ah, partager moom seeni groupe whatsapp waaye itam waaye itam ah, ci yenn réseau yi ngir rek kémante ne waxtaan ni mel soxal na la wala wala nga am loo xamante ne am nga ko ci wàllum xalaat nga ñëw fii rek ci sunu plateforme de discussion ndax wax émission bi tamit plateforme de discussion la boo xamante ne c'est ouvert à tout le monde amee xalaat rek ci li nga xamante la jàllale waaye nag euh, ni may waxee saa su nekk rek xam nga waxtaan moom dafa daal di nekk loo xam ne am na solo waaye itam dafa mel ni sensibilité boo xam ne mu nga ci biir ndax kaddu moom kaddu moom mook euh, balu fetale yam su xefee ba génn rek génn te kenn xamul fa lay daal di dal moo tax dañuy ñaan képp koo xam ne yaa ngi woote rek kaddu yi daal di rafet rek dégg-dégg ba gën a euh, gën a mën a baax salaamaaleykum salaamaaleykum maaleykum salaam la sama sëriñ maa ngi delloo ziar bu baax naka foofu. ah fii moo ngi nii di metti rek. yéen ci jàmm bu baax. waaw ñoo ngi sant yàlla moom jàmm moom ñoo ngi ci. alhamdulilah <laughs> waa Kolda la. <laughs> maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. Ah, alhamdulilah may la dem ba baax. dem Demba Demba naka waa Kolda yëpp. waaw yëpp ñu ngi ci jàmm sant yàlla. yàlla na jàmm yàgg. oui ñu ngi suivre sa émission bi. acca bismillah. waaw ah, am na solo trop. Mhm. am na ñun lan la ñaan d'abord avant tout Macky la jégalul yëpp mu tàggoo si jàmm mm. mu dem parce que jamono bi pare na mm-hmm. dëgg mm-hmm. Sonko wàlliwul la mm-hmm. parce que moom fu muy folle gars yi fi ñu ko foog foofu comprendre ay affaire mam may ñaa Sonko loolu après la parce que mam may ñaa moo xam ne lépp lu mu fa demee alal bi moom moo ko lekk mm-hmm. te yëpp ay leer incha allah waaw ñu ñaanal nag saa su ne Ousmane Sonko ne yàlla yokk jàmmam mu gën si prison fu mu nekk dëgg yàlla kontaan naa si yow nag saa su ne maa ngi seetaan say émission yow kañ moom du ma la fàtte benn yoon Demba. walaay walaay bu ma nekkee tool ba saa dama <laughs> war na borom daaru parce que dama lay bàyyi xel bu baax a baax. vraiment merci merci. tale bi nag nag yàlla yokk amiin amiin amiin. képp ku la bañ yàlla mu dee. ah déet loolu loolu moom bañ. yàlla mu dee man moom maa la ñaanal ñaanu boobu noonu. do Demba nañu ñaanal nañu jàmm rek vraiment. jàmm non non képp ku la bañ yow yàlla mu dee. parce que li ngay def da yàlla dafa am solo trop. Mm-hmm. dafa am solo parce que yoon ñuy yee eh, lépp lu ñu jaaxal billaay bu ñu la dégloo rek ñun dañuy xam fu ñuy jëm mm-hmm. parce que émission bi dërël la lépp la jaaxal rek boo seetalee émission bi mm-hmm. da ngay xam lu la war ak lu la war a dégg mm-hmm. kon loolu saa su ne ñu la ñaanal jàmm dégg nga merci Amin naa ci yow trop billaahi waaw maa ngi ñaan nag pétrole yi Bassirou Faye nañu ko yàlla na gaay na gaay parale d'accord. <laughs> muy parrainer deux millions trois millions parrainage na tegu. Ah, ah, ngeen ko aj sori na. waaw te dina am parce que gis nga moom fu muy defal or bi nii. Mm. man bu ma juddoo ba léegi élection yi ma mus gis yëpp c'est la première fois may gis parrainage bu man nii da ngay ñëw nga parrainer nga joxe sa xaalis boobu boobu yombul de. waaw maa ngi lay ñaanal jàmm a dégg ko dalawee tam. maa ngi si maa ngi si kër gi nii te a tool nuyu naa gars yi yëpp nuyu naa patron yi yëpp. merci merci ñoom. yëpp maa ngi leen di fu mu nekk nii sama xol dafa kontaan. wallaahi sama xool dafa sedd. <laughs> d'accord sama diggante yàlla. merci beaucoup Demba. si siyaar naa bu baax a baax. merci nga nuyu ñu waa di ko nuyu di ko jaajëfal bu baax a baax ah. ah. moom nag sunu soppe la Demba depuis euh, Kolda moo tax saa su nekk rek même su teewlul waxtaan wala sax su ñëwee dañ koy daal di euh, bëggee ndax nit moom euh, ku la safoo di la seetaan bés bu nekk ah, koo ko amoo fem donc moo taxit yéen ñëpp yi nga xam ne ñuy seetaan saa suñu xëyee dañ leen ñaanal jàmm di ñaan suñu borom mi nga xam ne dara taw ko mu leen wéy di leen kàttanal salaamaaleykum. salaamaaleykum. allo. allo. oui. salaamaaleykum.